Sone nee na Barham jox na ma terrain bu mag ay hectare ba pare ñu ne lii jox waaye mu bu mag jox ma nee na rëccuuma lu ma ko doon sama bés ndax wax dëgg yàlla surtout ma ci woon loolu yëpp. waaw. léegi ñi ànd ak délégation bi ànd ak Barham ni nga taxawee baaxul da ngay dugg ci digg Barham mi ngi ànd ki nga xamante ne Ahmed Sow. Barham mi ngi ànd ak Maw Mbaye. ah. Barham mi ngi ànd ak Papa Guèye. mi Imam. Imam rek lañ def de. mi ngi ànd ak ku ñu wax Gaajo. mi ngi ànd ak waaye bi yàlla ku ñu wax Ibrahima Seen doom moo ko préparé ba mu nekk ko mun ko sama bis bi mu ci ne yow laa koy terale ko seere gi ndeysaan gis ko Abdoulaye kenn dem waajal boppam wala ba ba ci kaw Matar Ndiaye ko yool ko terale yaa ko terale waaw boo ko toroxalee loolu ñu koy solal caxat la xam na caxat waaw xam naa caxat ba caxat gi nii ñu koy solal mu koy caxat lañ koy solal tey la yàgg maa na xam na caxat cax xam naa caxat Babacar mu koy joxe mu ngay boo demee boo demee ndem ndem dëkk fu ñu naan ndem waaw da koy seet sax àll ba yàlla yàlla defal la jàmm yàlla yàlla yokk sa fan yàlla yàlla guddal sa fan ci barka Baye Niass yow ku sa maam mooy Cheikh al Islam waaye jox sa ne wàcc na waaye du wàcc nga ndax ndax ndax sa tur loolu rek sa bokk la def ko Mame Laye sa maam rek moo ñu aju boo daay laa. waaw kooku nag noonu li Mame Laye la waaye mbaaxam moom mbab eh, kooku nag taw la waaye aju boo daay lay kooku sëñ naa li ma mën. tënkal bas. ah loolu. merci beaucoup. ndax wóor na Babs ñàkk takk dara ndax wóor na dëggantaan daal li ma xam mooy mbër takkaay boo demee ci dëkk fekk ñëpp bu guddee huit heures ñu ne tëdd a na ko rafetal de mu ngi noonu Brise de Mer ñi ay xalam waaw nee na bu déwénee yàlla naa leen na la ma yuri bi yàlla nee na may dogal li ma ngi nga xam ne mooy Brise de Mer à droite Lamine xanaa da ngaa naan Lamine tey la huit nga ne tey la dix loo naan puudaru mbóot wala bu bar wala bu mbët ñu ngay lewaatoo ñaari trois Lamine. Caaroy sur Mer. lan la mu a ku mujj a daan. Malika. fàttali ma ko. alias Birom. la mujj a daan ca arène nationale. Eh, sans verdict dañ ko mujj a kase. waaw loo ci mën a dégloo avantage am waaw ndax looloo ko may tey mu ñëw ni di bëre grand combat ndeysaan général Malika ko andi kële bàyyi ma ñoon siñooro ko andi Caaroy ak Malika su ngeen bëree war ay dëkk ngeen yéen a dëkkandoo yéen a bokkum pegg langandoo waaye Ousmane Diop nuyu naa ko de borom Émile Badiane tey moo ma sonal ci bulu Ousmane Diop eh door na ko Ousmane Diop bu Balla Gaye maa ngi koy nuyu dooraat na de cokkaasante brise de mer Jibson production combat bi nga ni amateur yi neex na waaye jéeya ngi waaj le 22 décembre Serigne Ndiaye Libidor petit production le 21 décembre booy yëmbal Xeeru Ngor numéro 2 eh waaye Baba Diaw borom la 14 décembre Papa Ndoy Jackson Senior jàppante nañu jàppante nañu waaye ana Jamaïcain forom Gambia eh Baye ma njoon xoyantaan laay layee door na ko de booy bi na moytu de xale bi am na expérience de jël ko moytul dalay daan daan na ko oh daan na ko arbitre daan na ko yàgg na daan na ko bu yàgg jël ko moytul dalay daan yàgg na ko Oh, tànk la ko dóor arbitre tànn na ko yàgg na tànn na ko bu yàgg da koo dóor tànk taala yàgg maar tànk la ko dóor toppal ma lii